Centre national de transfusion sanguine, dans le but de collaborer, mais aussi de les aider, de les soutenir sur euh, cette journée mondiale du sang, qui est une journée très importante, parce que donner du sang, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on voit qu'au Sénégal, plus de 5 femmes meurent à cause de manque de sang, à cause aussi des maladies chroniques qui ne cessent aussi de, de ménager euh, euh les, les Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour les soutenir en faisant d'abord euh, euh, le, patriotisme, de, de, de, de montrer d'abord l'exemple que nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des panafricanistes, mais nous sommes des citoyens aussi de, ce pays. Donc notre objectif, c'est de répondre à l'appel du CNTS pour donner aussi du sang, pour aussi sauver des vies humaines. waaw tey ñëw bi si biir CNTS en tant que étudiant du FRAPP war a war a euh, bon exemple pour les citoyens pour ñu mën a ñu installer ñu ñëw def ni comme étudiant du FRAPP ñëw maye deret parce que maye deret dafa nekk loo xam ne lu am importance la bu ñu xoolee suñu réew mi Sénégal euh, juróomi jigéen dañuy euh, perte seen bakkan une fois bu ñu defee accouchement ba gis nañ ni ne am maladie chronique comme drépanocytose ay diabète ñi nga xam ne dañoo ay maladie yoo xam ne ne yooyu noonu dañuy soxla deret kon soxla na askan wi leen deret mais may deret nag dafa nekk beneen aspect mu am en tant que étudiant du FRAPP parce que tey jii tey ñu doon xeex révolution ñu doon xeex panafricanisme dañoo deewoon ngir ñun dañoo deewoon may seen bàyyi seen deret pour sauver pour pour sauver suñu humanisme pour révolution pour ñu mën a nekk kon tey c'est à notre rôle en tant que étudiant du FRAPP ñun tamit ñu position boo xam ne dañuy ñëw maye suñu deret pour ñi xam ne am nañ maladie chronique si contexte coronavirus bi ñu nekk nga xamante ne aussi deret lu nga xam tamit def de façon bénévole pour ñëw aussi participer dooleel CNTS donc la FRAPP aussi répond à l' appel du CNTS parce que en étant panafricaniste en étant révolutionnaire en étant citoyen au delà des dénonciations au delà des combats citoyens que nous menons war nañ posture d' posture patriotique boo xamante ne tey bu CNTS woowee yeneen hôpital yi woowee aussi aussi comme ni ñu